salaamaaleykum suñu mbokk internet ci ginaaw bima len leen di am mbégte di len dalal ci seen émission en Feeling mu nek une émission fun pour vous divertir tay nak ñu ngi fi ci en plus précisément en Pêcheur fas yéene ak ndaw gox bi ci li nga xamante ne di coronavirus manam saganté ak bàyyandiko bi ñu ci population bi ñeel mbass mi bala lolu nak dama len di may benn clip entre temps Ben clip bu Fireman pour camper le décor à tout à l'heure Voy a un cambio de la yéen yéen a ko war a doole saa yam ne def na lu nekk lu baax. non kii boobu ñu doon koo xam. seen problème léegi c' est que seen ñoom ñi nga xam lu si gën a mel ñoom dañoo nekk si marché bee foofu lañ koy yemale. seen problème seen problème boobu ngeen defoon ni borom affaire yi àdduna moom créé na ay groupe comme ni ñuy jàppale booy Dalifor. voilà yéen sécurité day dem te yéen a loolu la mën a. mais dañ ko gëmul buñ ko gëmul ñu ciy. non bàyyi loolu bàyyi loolu. non mais lan mooy gëm mais lan mooy gëm. mais lan mooy gëm.

kër maag teew sama dëkk boo du dugg ne yéerax la dekk ñu jox la gëdd amul rasis ñëppay demalante do xamé law ba géer baa fu la neex lekke fu la neex yeewa buntu kër bu la neex feug jom fay fayda bi ngeen saxona law ci kaw ci kanam damay teewal yaa ba bis bi may delu almeeru cham kanam moo xam ba joueur artiste nan ko teewa ci bépp anam foog sunu drapeau jug flotté ku fi wàllu si saltal deram ñu ànd dóorandoo ko croisé yaraax dëkku maxa njaay fat job caane samba kasanka saaxo bu ñu nangu des ginnaaw jom fulaak fayda nañ ko saaxo war ñu mujjee puso mu réer lu fi maam yi baan nañ ko baaxo fi bu njëkk nu problème toll du mës a génn dañ koy waasoo demalante beeg diggante bi dudante doom la mag ñi xamoon fii kenn daawul xarof sa doom kese def lël sa kaw Aline say sët duñ ko mës sa jaay. alors c'était Fireman original Boy Yaraax ci clipam bu nice boobu ñu ko see encouragé te di ko félicité di ko ñaanal une très belle continuation tey nag ñu ngi fii ci marché bi fekk ay daam ñu toog toog bu am classe nii di jaay seen ay banaana seen ay pomme ñu fas ne waxtaan ak ñoom comme ni ma leen ko waxee ci mbas mi soxna yi na ngeen def. dinañ si jàmm bu baax seen toogaay rafet na de. d'accord tey nag waa Hann TV ñoo leen seetsi woon bëgg waxtaan ak yéen bëggoon am ay quelques laaj yu ñu leen laaj ci mbas mi tey nag dañ leen bëggoon laaj càggante bi ngeen bi nga xamante ne ñun ñëpp ñoo ko seetloondoo ci sénégalais yi maanaam respecté tuñu geste barrière yi mesure barrière yi et tout loolu lañ di laaj ndax yéen ñi tamit seetlu ngeen ko ci mbas mi waaw maa ngi leen di nuyu yéen sant di leen gërëm waaw feebar bi moom yaa ma gën a xam solol nañu trop trop trop mooy loolu dañoo war a mën a respecté masque yi respecté tamit couvre fa bi tamit liñ ñu wax parce que seddaay bi tamit bu dee ñëw nii feebar bi day yokk yaa ma gën a xam tàngaay bi tamit mooy loolu day wàññeeku. d'accord soxna si yow su ma la déggee kon dangaa bokk ci ñi nga xam ne dañoo war a respecté mesure barrière yi yow yaa ngi toog def sa bële bu baax jongo ma mais dama gisu sa masque sa table gisuma ci gel. maa ngi ci ci mais masque kenn du ko def ci kii. waaw feebar bi daal métti na trop asu métti na trop barki yonent bi parce que ah. instant biñ toll nii cité bi tamit nangootuñoo jël nit ñi liggéey bi liggéey bi daal métti na. demeetul noonu. waaw baax na maa ngi yëngu ci wàllum banaana wàllum clémentine wàllum pomme te njaay mi neexul non day baax léppay baax incha allah yow ni nga ni ñu la gisee ni nga toogee nii taaru xam nga ne loo jaay day jar léegi nag dañ la bëggoon laaj bu fekkee da nga am loo xamante ne bëgg nga ko wax askan wi pour ñu gën a fagaru wala loo xamante ne bëgg nga ko wax ak état bi hmm. waaw lenn rek laa leen di digal nañ respecté masque yi respecté tamit kii bi couvre-feu bi mooy loolu daal affaire yi daal léegi mu jeex dañuy ñaan yàlla yàlla jëlee ko fi rek incha allahu rabbi amiin yal na la yàlla dégg soxna si ñu ngi lay remercier di la jaajëfal bu baax kontaan nañ torop merci beaucoup waay maa ngi si jàmm bu baax a baax. waa tey ñoo leen seet si woon bëgg a waxtaan ak yéen ci mbas mi lan nga remarqué ci jeunes sénégalais yi léegi ndax ñu ngi respecté couvre-feu bi wala ñu ngi respecté seen mesure bariere ba léegi. ah am na ñu ko respecté am na xam ne moo wax dëgg yaa respecté ñu ko yaa ma gën a xam bii bi daal ku fure bi daal. mooy loolu. daal yaa ma gën a xam daal. ay waay merci beaucoup waay. merci. waaw léegi lan laa la bëggoon laaj yow lan moo tax takkoo sa masque.

a ah, ñu respecté ko rek yaa ma gën a xam waaw gën a xam daa as fi daal. yow daal say xam naa yow ni ma la gisee di ku bëri feeling nga léegi man lenn laa lay ñaan damaa bëggoon yow est-ce que mën nga maa may benn mai bu am job nii nii. may ma lu neex loo xamante ne dama koy tëjee benn genre lépp wala maye yow wala. ah bu a as non kii ni ma ko kii ni ma ko gisee nii xam naa ki nekk si wetam moo ko gën a aay nañ dem ci ki nekk si wetam xale bu teint noir jongo yaa ma gën a xam chéri ci loo maa ngi fi. si jàmm bu baax maa si jàmm bu baax. chéri tey waa Hann TV ñoo leen seet si woon bëggoon waxtaan ak yéen ci li mbas mi coronavirus bi maanaam mesure barrière yi ndax population bi ñu ngi koy respecté yow lan nga constaté si loolu. ah dëgg la moom corona am na weddu ñu ne am na de moom waaye période couvre-feu moom. dëgg yàlla nag Macky Sall su ma suyee mu yokk heure bi vingt et une heures dafa yomb trop bu yokkoon vingt deux heures wala vingt trois heures sax mu baax waaye xool image yi ñu toog war a jaay dix huit heures la laal vingt heures ñu laal loolu neexul ci xol. neexul ci xol moom. te masque dëgg la dañ koy takk moom neexul waaye man su ma takkee masque damaa gaaw a crise. crise maa ngi su ma takkee masque damay xëm maa ngi nii ma toog war a jaay nii gisuma fu may jaayee dix huit heures laay laal dix neuf heures ma laal wala vingt heures. lolu ëpp na yow de est-ce duñ la teggal walum tak masque bi comme ko bo takké masque da ngay crise la yow damaa sonn bilaay man da su ma soñoon daan teg kuufu fa mom ah yow lolu nga bëgg wa ni nga jonga ma ngi ni enthousiaste di def say fiem ak say manière dama bëggon nga may ma lu ndaw lo xamné dina ko mëna duggal divertis man est-ce dina amna am lu ma ah man wa ah. wa man li la bëgg ci xalé wa wa may ma lu ndaw xaaral man daal man dal man ma gën a woo daal mooy na dindi fa rek amo dara loo ma mën may lu mo meuna fexele sama xol sama xarit bi wa est-ce que doo gàddu benn pom benn banaana dem moo gën. Ah, loolu foor na loolu foor na xam naa dama la koy mujjee jéggal vu que temps yi mooy loolu te njaay bi doxul dama la koy mujjee jéggal en tout cas kontaan naa torop kontaan naa ci ay réponses xam naa ba temps yi rek incha allah ok merci man dama na ñu fier dëkk dama fier am na ñu oji booy ya raax oji man dama fier dëkk ana ñu fier dëkk dama the dëkk I know you dëkk the baax boy oji boya baax boy comme ni ngeen ko gisee suñu mbokk internet yi xale yu jigéen ñi jongoma yële li ñu wax ci mbas mi kon ñu ngi leen di firndeel ne que ne mbas mi solol na dëkk bi ñu ngi leen di gis ñoom ñëpp aussi ñu ngi toog takk ñoo masque et tout dafa mel ni càggante gi ñuy wax ñu ngi noonu di ko ràññee suñu première kii yi nga xamante ne ñoom lañ doon interviewé tey jii nag maa ngi waat nii di ngeen may topp nii ma war a interviewé benn xale bu jongoma mu ngi nii taxaw xale bu jongoma sama caméraman dama bëgg nga jëlal ma xale bi ci kaw ba suuf xoolal ma tamit waa lii ëpp na de waaw waaw soxna si ça va na nga def. ça va maa ngi nii. yaa si jàmm. mbaa yëg nga ne yaa ngi jongo ma. ah gis naa la yow laay jàppale. si non bàyyil tooñ kontaan naa ci li nga def de. ah waaw kon baax na tey jii nag waa ANTV ñoo leen seet si woon fas yéene waxtaan ak yéen ci coronavirus maanaam mbas mi nga xamante ne ñeel na population bi ba tax na ñu bëri instant bi dañoo dem ba mel ni dañoo farlootul ci corona bi ak geste barrière yi. ah waaw kontaan naa ci wax ji may laaj nii parce que sonal nañu torop mbas mi te tamit xale yi dañoo bëgg seeni waajur yi di leen jox ñuy raxasul liquide di leen jox ay masque ndax mbas mi yéem na àdduna ñun fu ñu jëm sax suñu xel yi dootul dal imaginer nga war a liggéey 7 heures léegi 6 heures nga yeew wala 5 dem sinon doo dugg ndax lan mbas mi kenn ñemeetul nit ñi dajaloo. kon yàlla na ko fi yàlla jëlee daal ndax mbas mi sonal nañu torop torop torop mais tamit ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen kenn du yéen ndax yéen a ngi wër àdduna di laaj nit ñi ah seen xalaat waaw kontaan nañu dinañ gëna farlu suñu njaboot. ñun ñoo la gëna contane soxna ci parce que tay ji ñun askan wi kessé ñoñu fi tax a askan wi rek ñoñu ñu tax mais tay ji yow dama lay laaj ndax ciagante gi sétlu nga ko manam ñak tak masque beeg ñak respecté mesure bi yow sétlu nga ko ci sénégalais wa deug la des fois nga dajé nit sax du yor masque des fois nit day dugg ci auto yow da ngay bokk ak nit auto ngay xey di liggéey mais il faut que policiers yi wax leen ñu masqué wu. wala bu la séenee la ñuy génnee seen masque te loolu du yoon nit ñu dañoo war a respecter affaire bi parce que kuñ ci jàpp dañ lay téye te dëkk bi neexul feebar boo xamante ne ñëpp moom la ñuy daw kon buñ la waxee fagarul rek da ngaa war a fagaru kon daal ñu daal ñoo ngi ñaan daal yàlla na ko fi yàlla jële parce que ñun tamit fu ñu tëdd suñu xel du daal ndax suñu mag yi tamit ñu ko extérieur lu mel noonu la ñuy dund kon yàlla na ko fi yàlla jëlee sénégalais sonn nañ torop booy xëy sax da ngay tiit yaax sa njaboot. amiin na si mais yow mën naa xam lu tax tamit wala dañ la wax ne da ngaa belli rafet rek ba tamit du par pochette tamit. pochette mais rek soriw ma maa ngi jégalu maa ngi jégalu ah, baax na mais loolu yàgg feebar bi de. ma def <laughs> na kon loolu lépp dina leer ñu ngi lay jaajëfal kontaan nañ torop xale bu jongoma bi si nekk tey raax am na nii. Eh, waaw kon baax na sama caméraman topp moom moo daal di Njaay mi tok ni di jaay soxna si na nga def yaa ngi si jaamu bu baax tay wa Hann TV ñoo leen seet si woon bëgg waxtaan ak askan wi ci walum coronavirus. ah soxna si ah, torop kontaan nañ torop corona bi sonal nañ torop ñaan yàlla suñu borom mi ko fi wàccee yàlla ko fi jëlee gaaw dëgg yàlla parce que yàq na lu bari boo daan xëy di am jooni legi am mi francs sax mëna to ko am mi francs sax mëna to ko am ndax coronavirus yàlla nañ ko suñu borom dakal kon yow suma la déggé bu baax dafa melni corona bi laal na la parce que yaa ngi nii toog di jaay mais ba léegi da ngay wax ni corona bi da la sonal parce que tay ji bo doon jaay 10000 1000 francs ngay wàccee. ah sonal nañ torop parce que ñun ay ay xalé lañ mais euh, am nañ njabot buñ dé ay xalé tamit amna lam tane war nañ suñu kër yi waaw parce que gur baxna jigen baxna jom lañ wax xey baña tok waaw même boudé dee warga sax warna la sen kër sonal nañ toro mom wax deug yalla mom, yow de buma la déggé ni mom jigen bu jambaté nga li nga wax ni mang lay encourager bu baax a baax mais tamit yow tay yaangi tek sa table di jaay ñam et tout ça yow dama bëggon xam lan moo tax masque tegoo gel sa table ah, <laughs> ah loolu yaa ngi reetaan de. Ah, mom du yoon dama koy tak sax surtout bi may genn dem fen dama koy tak mais c'est que dama nek nit ka am sama noy pour <laughs> Mbaadu da nga am ay problème respiration. wa lolo leen sonal nak nga dekk bi leg ñi wër dañu bari wul deug yalla ba ñoo tak masque wax deug la mais tamit de ko fanatal de parce que mbass mi mi ngi ci rew mi ba léegi de ñu ngi koy sagane ñu ngi koy sagane mais mi ngi ci rew mi ba léegi. wa mi ngi ci rew mi jugu fi ndax heure bu ñu tamit ñu ngi déglu journal. ñi nga xam li xew ci dëkk wax dëgg yàlla mais yàlla na ko suñu borom jëlee. amin amin soxna si kontaan nañ trop ci la tontu yu ñu tontu xanaa di la encouragé di la ñaanal yàlla na ko fi yàlla jëlee yàlla sa njaay mi gën a avancé sama caméraman xam naa dama seen fi benn grand bëgg ko laaj rek tuuti ci mbas mi sëñ bi ça va def. naa la tey nag waa Hann TV ñoo leen seet si woon bëgg waxtaanee yéen ci mbas mi maanaam càggante gi nga xamante ne ràññee nañ ko ci sénégalais yi léegi farataalatuñu ay takk masque ay laal gel distanciation bi respecté tuñ ko loolu daal lañ leen bëggoon laajte. waaw mais bien sûr pourtant li nga wax ñun ñu ngi koy ñu ngi koy appliqué ba léegi ngi takk masque yi takk ay gel xam nga nga xam du jeex mukk kenn xamul nag kan lay jeex. mais day ñaan yàlla rek yàlla na ko yàlla teggi bu ko fi yàlla bu ko fa ne daal na ko yàlla teggi amin amin sëñ bi yàlla nañu ko yàlla teggil mais yow tey jii maa ngi la gis xam nga ne corona bi ngi ci dëkk ba léegi ah yow tamit est-ce que yoon la waaw wa nga dëgg man si sangu laa jógee léegi léegi wax dëgg yàlla moom heure mooy gën a may sama loxo yaa ngi sama masque dama ko fàtte rek pour ñëw pour jënd si mburu rek pour mën a dawat duggaat parce que corona bi mu ngi dox ak de yow ni ma la déggee ngay hésité est-ce que bokkoo ci ñi nga xam ne gëmuñu ne am na si dëkk bi. non am na de yàlla xam ne corona am na de. parce que chaque jour yaay dégg fii moor sama moor corona bi am na de daal dañ jël seen motukaay rek comme ni nga koy ñu topp tamit déglu docteur rek jël seen motukaay raxasu taxa masque waaw yaa ma gën a xam ne waaw. Hmm. d'accord sëñ bi ñu ngi lay remercier te dañ la bëggoon aussi bu nekkee am nga leen loo xamante ne bëgg nga ko dolli pour ñaax ka wi wala wax ak état daal ci mbaalum mbas bi. waaw loolu moom wax dëgg yàlla ñoo mën a toppatoo suñu bopp avant tout kon li ñuy lancé rek waa yaraax comme ñun yaraax rek ñu am waaw ñu lancé suñu yaraax yi rek ak kër yi ak yaay yi ñu jël tamit mu ñu jàppale suñu doom yi tamit waaw di leen takkal masque di leen jox gel di leen toppatoo daal di leen tamit si lu bari comme mbas bi dafa am te mbas yi bàyyul mag bàyyul xale daal ñëpp lay laal kon daal nañ jël suñu initiative rek ñun mag ñi mën a jàppale xale yi waaw. surtout célibataire yi wala yow bokkoo ci célibataire yi. non non célibataire de. doo célibataire yow nga jàll nii di jënd si mburu heure bi mais non dafa am lu mu war a génnee rek mu war a jënd si boutique bi rek te xam nga ba couvre-feu bi te ñun yaa ma nga xam moo duñ génn mën a ñun xaa ñu dem rek pour mën a prévision pour jënd teel a ñëw teel a duggaat suñu ah waaw baax na en tout cas ñu ngi lay jaajëfal di la remercier bu baax ci tontu yi ñu tontu merci beaucoup. ñu ngi wéyal suñu laaj ci wàllu mbas mi xam naa sama caméraman danga may toog daal di

client am ak mbas mi topp ma sama caméra waa salaamaaleykum sëñ bi naa def. waaleykum salaam maa bu baax. yaa ngi si jàmm bu baax. tey nag sëñ bi waa Hann TV ñoo leen seet si woon fas yéene waxtaan ak yow ci li nga xamante ne moo di coronavirus ak càggante bi nga xam ne seetlu nañ ko ràññee nañ ko ci population bi ñeel mbas mi. waaw avant tout d' abord ñu ngi nuyu waa Hann TV di leen ziare di rafetlu liggéey bu rafet bi ñuy def bon ah, xalaat bu gàtt bi ma am ci mbas bi.

yeneen dëkk yi nit ngi ñu fay deewee ak yooyu ñun gisuñu ko fii suñu dëkk quoi vraiment gisuñu ko gisuñu ko fii nii Sénégal te fii gars yi dañoo réyal feebar bi dañoo réyal feebar bi trop nga xamante ne nii lu bëri li ñu daan def jeunes yi daan football yi dem sport waaw yooyu yëpp mënatuñ koo def quoi grâce à feebar bi ñun nag ñu ngi ñaan yàlla xam nga feebar bi gaaw jóge fii gars yi continué waat gaaw nekkaat seen activité comprendre que ñëpp mën a nekk si jàmm quoi parce que boo xoolee policiers yi ñalawatuñu ñu tamit jeunesse bi

nekk na lu ñu jaaxal trop waaw. mbaadu waaw non dafa metti dafa metti metti na. yow su ma la déggee bu baax gëm nga ni feebar bi mi ngi ci biir réew mi mais nombre de cas yi wax yow moo la jaaxal daal. waaw si nag am na kenn wax kenn wax ne feebar bi amul quoi parce que ñun ñu gis internet bi ñu ngi gis ay preuve ñu ngi gis ay preuve mais suñu dëkk ci boppam lañ gisagul ay preuve quoi. Mm. ok doo dox ba dayanteeg ñu ne la kii dafa corona woon. et tout affaire yooyu noonu vraiment te fii gars dafa am lu ñu bu ñu bu ñu ñu ko bu ñu wanoon comme comme ni ñu ko wanee ci yeneen réew yi. dinañ dinañ dinañ jël suñu matukaay ci côté yëpp parce que boo xoolee booy ba léegi ñuy football yi boo xoolee gars yi li ñu daan def ba léegi ñu koy def parce que gisuñu preuve parce que gisuñu preuve gisuñu preuve bu ñu gisoon preuve bon jël ay matukaay bu baax ci feebar bi mais di ñaan yàlla affaire bi jugee fi quoi parce na trop. amiin amiin na la yàlla mais yow dama la bëgg a laaj en tant que jaaykat yow mbas mi nan la ci ban côté. non bi côté bi ñu laalee bëri na trop vraiment boo xoolee avant affaire bi di am moom. waaw ñun dañ daan xëy journée di jaay jaay lu bëri macha allah boo xoolee jamono ji xaalis dafa dafa demee boor daal dafa demee côté dëgg na yàlla koo wax mu ne la corona bi moom a laal sama liggéey doxatul waaw metti na ci ñun ci ñun population bi trop waaw métti na ci ñun population bi trop boo xoolee ni mu si ñun moom ah dëgg na yàlla li ñu ñaan daal mooy affaire bi jógee fi quoi parce que da ngay xëy journée doo jaay dara vraiment métti trop métti na trop ah à vrai dire sëñ bi yow ni ñu la déggee ngay waxee nii dafa mel ni mbas mi laal na la trop trop trop comme ni nga ko waxee yal na yàlla nangu ñaan yal na fi mbas mi gaaw jóge léegi nag lenn lu ma amoon di la ko laaj mooy.

amna lu nekk ci dëkk bi quoi mais boo xoolee 21 pour heures ñëpp dañuy pare wàcc pour dem seen kër yi ñu def ko 21 bi ñëpp dañuy dañuy jaxasoo di booloo mhm. kon dañuy da ngay jàpp affaire bi amul sens mais bu ko defoon tamit 23 dina arranger jaaykat yi dina liggéeykat yi aussi tamit waaw dina ñi nga xam day dem Dakar war a xam wàcc di xat-xatloo ci yeeg njege njaay metti trop vraiment bu ko ba yóbbu ko 23 heures dinañu quoi mais nag population bi li ma leen tamit comme tamit état état mënul état moom kenn mënul xëcc ak moom parce que ñoom bu ñu demee ba ne couvre-feu am na corona am na tamit ñu jël suñuy matukaay quoi jël suñuy matukaay yi def li état bi santaane xam nga ñu génn takk masque sinon kon boo ko deful da ngay jàpp rek. waaye yow da nga jëlee say matukaay yow. non man li may jëlee sama matukaay wax dëgg ne yàlla di ñaan yàlla wàkkiru sama borom rek. yaudah daal yàlla nga yaudah sa bopp yow doo takk masque sa place bi gisuma si sans gel mais loolu c'est eh, pas normal ma damay takk masque sax damay takk masque parce que su may dem uti bagage damay takk masque quoi parce que tamit bëgguma ñu jàpp ma man hmm. masque may takk pour ñu non vraiment man loolu loolu moo tax may takk masque quoi mais feebar man gëmuma ko dëgg ne yàlla am na nag am na mais pas Sénégal quoi parce gisuma ko sama réew man fii laa dëkk fii laay fii laa fii laa defee lépp mais tamit bu feebar bi amoon tamit dina gis dina gis ne feebar bi am na fii waaw dinaa gis ne feebar bi am na fii parce que gars yi wañu benn preuve bi wane que ni feebar bi am na ci ci Sénégal quoi gisuñu ko gisuñu ko vraiment

bu faté aussi di liker ak di aimer ci page bi aussi légui nag xamna fi lay dal di tëjoo tëjoo sama émission ak yéen en feeling et je vous fais un gros coucou je fais un gros coucou à tout le monde et je vous dis à très bientôt incha ci benen numéro ak benen thème. doo dégg.